mbubu yépp si Ahmad Tidiane sol na ko mbubu yépp ba muy fanweeri mbubu ak ñett mbubu yépp Sidi Ahmad Tidiane sol ko mbubu yooyu koo ko yurlu ci yërante yi doo gis mu sol ko bu ko soloon dana ko ëpp mbaa mu manki ko day day ëpp rek mbaa mu xat ko dàll nag bu la ëppee mbaa mu xat la doo ca dox kenn rek moo ko sol mu mat ko sëkk mu mën cee dox muy tamay borom muy sayiduna muhammad waaye wali yooyu yëpp wali jamono yëpp koo ci yurni mbubu yooye jotul kenn ci ñoom ku ci sol bu ëpp la maa mu xat la kenn rek la jot yëpp ba muy fanweeri mbubu ak ñett ñëpp natt mu manqué leen mbaa mu ëpp leen kenn rek moo natt benn ñaar ba muy fan bu ma ñett mu jot ko ëpp ko manqué ko mu Sidi Ahmad Tijani moo tax mu doon xalifaam mën ko wuutu ci ci ci tëbbuwaate fa huwa alxalifatu fi kulli albariyaati yëgoone fa almustafa bi fuyuudi sirri moom xallafahu kon kay fa huwa khalifatu kon lolou bu ko xalifa waxatoo rek xam nañ ko ndax man tok bi mafhum bi moy lola man tok bu ne dafa am mafhum comme fal mustafa bi fuyudi sirri xallafahu jarutoon fa huwa khalifatu way fa wuñu wax ko ndax nit ñi dañu nandite wut déedéet ah. mbubu yooyu nak yonent yalla muhammad nga xamni mom rek la jotoon da ngay da ngay baye xel ca yalla la déparé yalla summi ko sol ko yonent yonent summi wat solal sayyid ahmad tijani khali sayyid ahmad tijani mom nak mané mbubu yoy yépp summi ko ben nya ñet ba mat sak sak mu solal ko kenn mu jot ko mat sak mi khalifatul haji muhammad mom dong kott rokk dong la jot keneen kuñ ko nattal ne la ëpp mu mbànke la xalifatul xaaji muhammad rek la jotal xam nga lu tax waaye mbubb ya fam jógee min ka ilayka la fam jógee la delluwaat muhammad mais amiratu ibnu abdullahi muhammad amiratu ibnu abdullahi ci la delluwaat min ka ilayka loolu tax mu jot ko moo tax xalifa ne hey wa anna lirruuxi sirran laysa yudrikuhu illa allazi bi safaa al ismi yaqtarinu bi safa'il ismi yaqtarinu ndax yéen may deg way illa allazi degal nim amé teggi ma ngay neub bopam te illa allazi ji mom la bi safa'il ismi yaqtarinu ki am lolu mo meuna am le motax tax mbubb ya la tax mu jot ko du na ñam jotut du dara aha kay dara lañ ndax yalla lañ fen ta yalla du fal ciune waye may ak yalla la wa anna al fadla bi yadillahi yutihi man yasha ta yalla mum yegona yu ati ma sha liman sha ala wajhin sha looloo tax mbubu ya la tax mu jot xalifa rek rek rek mu sot ko mat sëkk mu doxee ko waxee ko ñëpp seedeel ko ko dafa min ka ilayka xalifa moomu nag laa moo ne woon fama lii saanin